ndimbal yi nga xam ni état wu Sénégal ci njiital le président de la république monsieur Macky Sall ginnaaw ba ñu yegg see sa diwaanu parcelle ndaw yi ak accueillir nañ leen ak mboolem ñi nga xamante ne yor nañu kàddu ci diwaanu euh, Parcelles Assainies waaye nag itam kii di le maire euh, Moussa Sy yëkkati fa ay kàddu kàddu li nga xamante ne la waat askan wi ki dëggal gi nga xam ne ñu ngi koy dëggalaat li nga xam ne moo di tawat bii di mbas mi di coronavirus xamal leen ni tawat bu wér la du ay waxu politique. ba na waaye tamit ci wàllu ndimbal rafetlu bu baax a baax mbooleem taxawaay ñi nga xamante ni seq nañ li nga xam ne moom lu wàllum ndimbal bi jëmale ko ci askan wi duñ ci sori dañuy bàyyi monsieur le maire Moussa Sy kàddu yi la dénkante ko waa jàmm ji foofu di raxasu bu ci mbas mi dañuy déglu li docteur yi wax loolu moo fi des nag boo leen bëggee balaa nawet la ñuy raxasu ay magum jëmm lañ du ñu ay xale suñu jarbaat yi ak suñu doom yi way corona suñu biir kër ci kanamu télé donc mënuñu nangu ay mag tey nekk ci réew mi naan mbas ay waxu dina am ay membres yu fi nekk yoo xam ne dina ci wax may remercier nag may jeexale monsieur le sous-préfet des Parcelles monsieur Babacar Ibrahima monsieur le ministre dama lay seedeel ni le sous-préfet et son adjoint bi fi nekk toute son équipe administrative pendant deux mois et demi depuis le 11 avril bi ñu jëlee bi nga jotee euh, sa arrêté ministériel dégagé terme de référence yi ba tey jii ba démb fii la ñu fanaan nelaw moom wala HCR fii la ñuy fanaan ba dernier d'accord donc loolu autorité administrative bu ko nangu ci jamono yu toll mais dañ ko war a magnifier donc merci à monsieur le sous-préfet avec toute votre équipe te gëm nañ ni liggéey bi nga def par conviction boobu def mais aussi tu nous as rassuré ça nous a permis aussi d'enlever toutes les équipes parce que ñun politiciens yi dañoo yor ñun lu ñu bokk rek wala lu ñu laal rek ñu indi esprit partisan donc ñun dañu rafetlu monsieur le ministre bu tante inanté remarquable mais aussi que les gouverneurs, préfets, sous-préfets, occupez-vous de ça en rapport avec les maires. Donc ñoom aussi facilité la ñu tâche bi jox nañ leen liggéey bi ñoom ñoo réceptionné ñoo organisé ñu jàppale leen donc ñu koy wax merci et toute l'équipe le commissaire de police Thierno Diop nous le remercions municipal di conseil municipal toutes les autorités administratives yi fi teew politique yi fi teew tous les partis sans distinction pouvoir opposition ñëpp donc encore une merci à monsieur le président de la République d'avoir passé de sa programme de résilience économique et sociale pour aider les populations dans le cadre de cette bataille contre le, le coronavirus. Nous pensons que ça a été pertinent, innovant de penser à distribuer à travers le million de ménages, autant de kits, de 100 kg de riz, 10 kg de sucre, 10 litres d'huile, 10 kg de pâte et 18 morceaux de savon. C'est important, c'est crucial au moment où nous parlons. Donc je pense que les populations ont bien cette décision politique, volontaire du président de la République et de son des parcelles, au du conseil municipal, au de toutes les autorités politiques. toute obédience politique pouvoir opposition. Euh, jërë ngeen jëf euh, mbokku téléspectateur jàmm ji info gis ngeen monsieur le maire Moussa Sy yëkkatiwaat ay kaddu jëmale ko ci le sous-préfet des Parcelles Assainies ñu di ko santaat ak mboolem li nga xamante ni euh, sous-préfet ñoom ñëpp ñu leen di euh, santaat ci taxawaay seen taxawaay bilee loolu kaddu ki nga xamante ni mu dee le monsieur le maire Moussa Sy di santaat tamit nee na le ministre Amadou Ba ak mbooleem ñi nga xamante ni ministre Mbaye Ndiaye yéen a dégg loolu ci ay kaddoom kon loolu la jàmm ji info jëlee leen woon fii ki di jaajëfalaat suñu ndaw ya fa Euh, prise de son bi di ki santaat ak euh, éclairage souvent moo fay dem di euh, Cheikh Libaas prise de son yi am na solo lool ci taxawaay bi lee waaye tamit ci wàllu réalisation bi Coumba Ndoffène Diouf montage de Seydina Omar ci wàllu voix off bii ngeen ci ànd ak seen mbokku taalibe bi Mouhamadou Lamine Mountakha di leen jaajëfal yàlla mi borom jàmm te ku mu jàmmal nga daal di am jàmm yàlla na yàlla sa borom bi doolu la defal jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa